li nga xamante ni mooy def lu baax ak rafetal ngëneel gi mu am ci weeru koor waaye ala kulli xaal boo déggee loolu ngëneel gi nga xamante ni moom la am def lu baax ak wax lu baax nekk lu ci lu baax ci lu weeru koor dangay xam ni tamit rek am na solo waaye tamit bul fàtte ni lépp liñ la sant ci koor gi santoon nañ la ko avant koor gi di ñëw moo tax sunu borom subhaanahu wa taala dafa waxoon yonent bi ni ko waa bu waabud rabbaka xattaa yatiyakal yaqin te mooy jaamul sa boroom ba keroog dee dikkal la moo tax yàlla kenn du ko jaamu ci li nga xamante ni moom mooy occasion yàlla kenn du ko jaamu ci occasion moo tax dama déggoon benn mbokk bu am solo mu ni nit yenn saay ci àdduna mën naa am occasion mais du am benn raison d'être bi yenn saa yi mu am benn occasion raison d'être bu mu defee dara mais du am benn occasion bi kon nag ngëneel yooyu nga xamante ni ngëneelu baax lu wax lu baax ci weeru koor biñ ciy njëkk a càmbar mooy lu ñu tuddee saraxe saraxe mu nekk loo xamante ni lu am solo la waaye ala xaal ak lu mën a am rek ñu xamante ni saraxe tamit bi ci gën a tuuti moom mooy làmb sa poche daal di joxe parce que sarax mën nga ci dégg lu baree bare saraxe ci cadre bi gën a kawe mën nga ci dégg action sociale saraxe mën nga ci dégg joxe azaka saraxe mën nga ci dégg li nga xamante ni muy dimbali nit taxawu nit assister nit financièrement moralement physiquement loolu lépp ci saraxe la bokk mais yonent bi sallallahu alayhi nee na saraxe ci weeru koor kenn xamul ni nga xamante ni noonu la tuyaaba ci am kon saraxe mu nekk loo xamante ni lu am solo la ci weeru koor ci ngëneel la bokk ci def lu baax ñaareel bi it ci ngëneel yooyu ba tey mooy li nga xamante ni moom mooy julli ci jàkka ja mooy al i'tikaaf soo ko nee nga dem ci jàkka ja di julli mooy surtout allah fukki fan yi nga xamante ni ñoo mujj ci weeru koor waaye mbokk julli ji est-ce que nit koo xamante ni dafay def i'tikaaf ci jàkk fukki fan yu mujj yi fanaane naafila fanaane julli ku man loolu yaakaar naa li nga xamante ni moom lañ la sant muy juróomi waxtu yi nga xamante ni moom nga war a respecté ku mën a respecté loolu war a mën a respecté li mu delluwaat ci li ñu doon wax rek nit du am farataam ba xame ba pare di def li nga xamanteni mom moy sunna kon ñu xamanteni i'tikaf i'tikaaf baax na te dafa bok ci li nga xamanteni mom moy ngeene li nga xamanteni ci wéru koor la bi ci dess simit mom moy tilawatul quran jang al quran jang al quran mbok julit ñu taxaw setlu ci ponk boobu mu nek ponk bu am solo jamono bi ñu gis képp ku al-qur'an yow la neex parce que nouvelle technologie baangi fi application yaa ngi fi rajo yaa ngi fi soo ko amul nga dem ci daara jo yóbbu sa doom wala nga wut benn maître coranique buy jàngal sa doom sa kër waaye daal ala kulli xaal jàng alquran farata rawatina ci weeru koor te mbokk jullit ji tuyaa bi ci nekk alquran xanaa xamoon ne kenn du fay mot kenn du fay phrase mais araf muy lettre par lettre lañ lay fay su fekkee da nga koy jàng bu ko defee nañu gën a jàng alquran yonent bi mu ngi ciy joxe benn garantie nee na alquranu wasiyaamu yëttiyaani yowmal qiyaamati shafian li ashaabi yonent bi nee na kuy jàng al alquran ak koo xam ni dafay woor waaye woor bi nag bul fàtte ni dafa am benn mesure d'accompagnement dafa am lu muy àndal mooy respecté ponk yi respecté charte yi respecté nañ la yàlla nee na yonent bi nee na yowmal qiyaam bu ñu ñëwee ñoo lay ramm ñoo lay plaider li nga xamante ni moom mooy yowmal qiyaam kon mbokk yi jàng jàngu alquran nañ ko fonkaat ñu yóbbu suñu doom ci daara yi ñun mag ñi nga xamante ni jànguñu tamit rawatina jeunesse bi ñu mën a jàng application yi nuñ ko mokkalee li ñuy sonnee ci envoyé ay whatsapp li ñuy sonnee ci envoyé ay application transféré yeneen ak yeneen bu ñu ko sonnaloon ci suñu kaamil alquran téléchargé suñu alquran wax dëgg fa yàlla dinañ mokkal li nga xamante ni mooy alquran waaye alquran tamit ñu xamante ni rek nekkul alquran boo xamante ni da koy jàng rek mokkal naa ko waaye alquran ala surati basharin si parce que alquran nag li muy bare bare bari bari ñaari baat rek la mooy al amru bil maaruf wan nahyu anil munkar mooy ay digle la ak li nga xamante ni moom mooy moom mooy tere kon mbokk jullit daal bëggoon naa gën a insister ci wàllu jàng alquran boobu ñu bañ ko jëf li nga xamante ni rek moom mooy occasion rek bu ñu ko amee jàng alquran wala ñu meubler ko suñu néeg yi wala suñu oto yi wala suñu oto yi loolu taxul woon alquran di ñëw alquran dafa ñëw pour jàngal ñu li nga xamante ni moom mooy suñu diine dafa ñëw pour wax ñu li nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la doon jëflante ak ay saxaaba bi ko mujjee mooy li nga xamante ni mooy dem umra kon daal bokk na ci ngëneel yi nga xamante bëgg nañ yi

nit ki bu fekkee doo devenir li nga xamante ni mooy besoin am doo ko xam doo ko càmbar mënoo ko dimbali mënoo ko assister mënoo ko taxaw kon pour nga sarax nit ki faaw nga yar ko wala nga jàngal ko wala suqali ko wala moo taxaw loo xamante ni danga koy taxaw kon nit saraxe bi ci gën a tuuti daal mooy làmb poche encore une fois kon saraxe bi bëgg nañ ko nañ ci bàyyi xel rawatina ñun ndaw ñi jàng alquran luñ ci man wala dem fekkee fu ñuy firee alquran wala nga télécharge sa application ñetteel bi ci nga xamante ni ci ngëneel yi la mooy ni ma ko waxee mooy def i'tikaaf te mooy julli rek waaye julli waxuñu nga julli tey tëb suba ni ñuy farataale suñu sport ak suñu gymnastique nañ ko ci farataale ñeenteel bi mooy dem umra bu ko defee yooyu mooy li nga xamante ni mooy ngëneel yi nga xamante ni bëgg nañ ko ay tuyaaba yu bëri la ci weeru koor salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.